jàkkaarloo waat yéen comme ni leen koy toppale lépp loo xam te ni moom moo di actualité lu jëm ci réew mi rek mbokk yi dina leen ko toppal yaakaar naa ne jëmm ji ma jàkkaar lool kenn dootu ko présenté ci réew mi bu ñu ko waxee muy borom xam-xam la boo xam te ni kenn naa taablewut xam-xamam muy kan Serigne Cissé borom tawféex nga xam ne nee naa leen naam bu dara dee am wala bu réew mi dee am ci lu muy jub ci dafay génn di wax yenn yi nga xam ne moom la gis te noonee mu gisee nag noonu la ko sunu borom di dogalee ba loolee mujj am mbaa mu mujj antu te am na ci yu baree baree baree baree baree bari jëm nañ ci dëtmal nañ ko ci lu ci mel ni élection présidentielle 2024 jëm nañ ko gis nañ ci lu ci mel ni tamit ay lenn ci ay làmbu tamit jëm nañ ci ñu war a waxtaanee bari ku xam nag xam ko ak ki nga xam ne moom moo di Modou Lo roi des arènes Modou nag jël combat boo xam te ni mbokk yi ay tëkka mu jël coow la bari na de combat bu taxawagut nga xam ne ñaari mbëri sax jàkkaloogut mu am coow. ay le jour si nan la man a demee xaaral ma bàyyi mbokk yi mu nuyoog moom boroom xam-xam la tey nag gis ngeen ko ni mu def naa leen daa ñibbi ci mbokki naaram yi Arabie Saoudite ndax bi mu fa jógee xam naa ne yàggut man defoon naa sax fa lay ume ji koor fa lay woore ji sëriñ bi maa ngi lay nuy di la ziar aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim laa hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim mbokki juliti mbokki taalibe yi ñoo ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di jiital ci nuyoo bi suñ Muntaxa Basiir suñ borom bàyyi ko fi mu yàgg fi lool te mu wér di ñaanal tarixa yëpp Tijaan laaj Laay Ñaseen ñëpp sax borom bàyyi leen fi ñu yàgg fi lool te mu wér di ñaanal ñi nga xam ne tey jii ñoo tëdd ci hôpital yi suñ borom yëkkati leen ñi nga xam caabi moo leen féete ginnaaw caabi féete leen kanam di wax ne weeru ramadaan bi saxru ramadaan bi nga xam ne mooy weeru ngëneel di weer woo xam ne weeru màgg la weeru promotion ñoo ngi ci baalu àq ñëpp di si balaax ñëpp di ñaan yàlla lépp luñ si woor rek ak lu ñu si jaamu yàlla yàlla na suñu borom fulal te ma nekk at euh, weer woo xam tamit yàlla nay ñëw dina bàyyi ci jàmm dina fekk si jàmm dina bàyyi ay xéewal ak wér ci barke Seexul Xaddim ñoo ngi gërëm ñëpp di ñëpp. ana sa mbër mi Modou Lo laa lay njëkk laaj tey ndax de mu seetaan naa ko mu communiqué am na mu communiqué ana Modou Lo. waaw Modou Modou Modou de moo ngi këram. moo ngi fi de wax dëgg yàlla moo ngi ci bis boo xam te ni bis bu doy waar la nee naa la combat bu ñaari mbër sax yoo xam ni jàkkaarloo ko ñu ñu gis dëkk bi yëpp di yëngu Modou Lo war na ko jël waru ko jël daf ko bëgg a may couronne bi coow li bari en tant que ngay ñaanal ki nga xam ne moom moo di roi des arènes di Modou Lo ñu ci mën a wax ci combat boobu. waa xam nga daanaka wax ci liggéeyu jàmbur daanaka am na noo ci waxe day mel ne xeeti seytaane la wala xeeti ñaane nit ki la. xam ah, Modou Lo man mayuma ko dépense moom mayuma dépense ci lii muy liggéey muy làmb ci lay amee dépense ci lay dimbalee ay nit ci lay dimbalee ay mbokkam kon bu ma taxawee ni ko Modou waroo jël Siteu boobaa dama saytaane wala ba ñaanee ko ndax mooy métier rek ma ne ko waroo am lii wala waroo am la rek sagam xool na ko moom mi nga xam ne mooy bëre xam ne lii gën na ci moom da koy jël leen ci man mooy ñaanal ko jàppale ko ci gunge ko ci ba keroog suñu borom defal ko muy ndam ñun mënuñoo bëgg victoire dañu bëgg euh, ndam ba gën ko ko bëgg moom déedéet mënta nekk lin man mooy gunge ko jàppale ko te loolu la ne ñaan yàlla mu jëm ci bisimillahi rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulilahi rahmaani yàlla jaar ko fa mu ko doon jaarle may ko ndam bi gën ci moom rek waaw loolu la daan <coughs> bis la boo xam te ni bis bu doy waar la tamit ci yéen ñi nga xam ne yéen ñaanal Modou Lo ndax Siteu la jël te ko wax wax gàllaaj ku wax séréer wax xam-xam ñu bari ne moom moo fi nar a remplacer Yaxya Jóob Yékini Siteu xam nga makkan <laughs> séeréer ak sooseek njaagoog yépp amul si ay làmb làmb li ci am mooy entraîner gëm ni lii sa métier la nga am ci fulla ak fayda comme moom Modou Lo lan la Modou Lo ban làkk la ah kenn daa xam olof bi la gën a kii te mi ngi ni moo nekk roi bi Balla Gaye lan lool soose daanaka du soose dara dañuy dem ba aw sant lañ topp wala seeni maam maamaat moo dem ba kii ja wanna koo ñu kon sa dëkku maam day bañ kon déjà am na loo xam des na Yékini moo fi nekkan séeréer nga xam ne tey ji yàlla def na mu dëkk suwaal nga xam ne fa mu dëkk ñëpp ay làkkat la bon yeewoo ñoom ñëpp ni nga naa asalaamaaleykum na ngeen def yi ngi si jàmm noonu lañ koy waxee ci seenu làkk kon kooku eh, xeet woowu moom mooy séeréer loolu gëm tey jii nag bu yàlla defee muy bëreeg Siteu damay wax ni bu dee jëmmi Siteu ak Modou kese sans dara Modou ko man wax dëgg yàlla wante damay wax ni la Modou am na combat combat bi mu am muy du digganteem ak Siteu de après ñi ci wàlli siyaan ah, pour jàppale Siteu moo tax ma ne am na combat ba mu dalee bëre ba léegi mën naa la wax wala ba mu duggee ci cour booy ba léegi ni da leen may sens jëlagul na sens boo xam ni bu ko yekkalee ma xam ne moom jàmbaar dëgg dëgg dëgg mooy Modou jàmbaar la xam nga lu tax ma wax la loolu mooy bëggut nga yor dara di ko jiital di dem gis nga Yékini dafay toog yàlla def muy daan di daan ba jël Balla gay ne ko da koy may sens kerek bi mu jëlee Balla Gaye ñu bari nee na moo man Balla Gaye lu tax Balla Gaye daan ko du dooleem kese du ay sëriñam kese daa am ñoo xam ne ñoo yëkkatiwaat seeni moyen dem fay ay sëriñ gis nga ma wax la lii bàyyi ci xel gis nga ñii di carte bu làmb amee comme Ama Baldé Modou Lo buñ dee bëre muudu muudu ak ñii di carte nii ñoom ñooy daan mbër ñoom ñoo xam sëriñ su baax si ñoo ñooñu ñooy jël ay millions fay ko yenn sëriñ soo xam ne sëriñ sax duñ xam mbër mi ni ñaanal wante ñoom seen xaalis rek leen gëm carte kat yooyu nag ñoo bari foofu tey jii nii koo ni ko koo génne cinq cent millions wala cinquante mille ni ko am Siteu day daan kee day jël deux cent millions ni ko Modou Lô da koy daan léegi nag ci ñooñu nag ñooy daan mbër ak ñeneen ñi nga xam ne yenn promoteurs yi nga xam ne Modou courant bi ni mu ko yore arrangé wu leen ñooñu tamit dañuy wut ay sëriñ ngir moodu daanu kon ma wax la ne Siteu moo ëppale ab jàppale ci digganteem ak Modou loo doon na Modou sama mbër. bu bu bu ba yàlla may ndam damay sant bu yàlla may leneen te ndam incha allah lañ ciy gis te moom lañ ciy ñaan yàlla te moo ci am bu soobee yàlla. kon que ngay ñaanal Modou Lo xam nga ne am nga combat. waaw moo am nañ combat combat bi ñu am muy Sénégal wax naa la bëgguñu di ji ngay jiitu chaque jour ngay jiitu bëgguñu ko te Modou yàlla dafa def ni comme ni mu yore kurang bi bokkut ak ñu ko ñeneen doon yore moo boo xool ni mu yore kurang bi comme ni ko Yaxya Jóob yi ki ni yoroon la ko yore muy toog benn place. doo ko gis ci ay publicité yi wala ñàkk fay de yeeg wala kër yi nangam boo ko dee gis mu ngi dem ci entraînement wala tey ji këram wala tey ji muy dox ay soxlaam wante bu ko ci beneen boo yoran tey ji ni yaay dàq génn yaay dàq dox yaay dàq tey beneen bi soof da ngay gis promoteur bi lay lëkkaloo ak yow bëgg laa defal signature contrat boo contrat boo xam ne saa bu la soxlaa da lay woo wala saa bu la bëggee booleeg mbër dalay booleek booleeg mbër Modou nag mooy xool mbër mu ko neex mu ni moom laa bëgg a moom ñu fay ko temps mu bëreeg moom xam kon kooku am promoteur yoo xam di leen arrangé ci noonu mu leen di ñàkk euh, arrangé googu bëgguñu Modou daanaa Siteu ndax Modou bu daanee Siteu daanaka day bàyyi laam léegi nag bu yóbbaale koram wi du leen arrangé moo tax ñoom dañuy bëgg Siteu daan bu Siteu daanee làmb danaa làmb day ubbeeku Siteu ak keneen Siteu ñeneen Siteu ak ak ñeneen gis naa Siteu ak ñeneen sax Siteu ak ñeneen ñoo xam te après dinaa ko wax Siteu ak ñeneen ñoo xam ñoo ñoo leen di gën a arrangé bu ko defee nga xam làmb day ubbeeku bu ko defee bu ubbeekoo promoteur seen avantage la léegi nag loolu mooy tax ba du leen arrangé yàlla xam na ni ñoom ñëpp a ceeb dañuy dañuy dañuy sut Modou te bu jour ba di nga ci xam dara ñoom ñëpp danaan sut Modou lu mu def ñu feesal ko ak ñu ñàkk a nga ne kon am na ci yenn ci promoteur rek ci mbëri yoo xam dañuy bëgg si te daan Modou. bari na ñoo xam ne am na mbëri làmb yoo xam ne sax buñ sayan Siteu daan Modou ndax revanche yi ñëw ci ñoom xam nga Siteu bu daanee Modou ñaan ñu kayaan bu daanee Modou day am mbër yim arrangé am promoteur yim arrangé bu Modou daanee Siteu day déranger mbër yi day déranger promoteur yi léegi nag loolu moom moo tax bëgguñu Modou yóbbaale kurang bi bëgguñu Modou téye kurang bi di xool xelum boppam xam nga Modou dafa toog ni day noppalu ñu koy doxal komba mu ni day noppalu ci noppalu bi même pas un mois ay ay trente un mois vingt jours wala quinze jours nga dégg ñu ne taxawal na combat wala deux mois taxawal na combat kon da xam ni kii moo yor ay mbiram nekkul koo xam danaa ko defal lii defal li moom mooy xool li ko neex mu def ko kon kooku daa am ñoo xam ne leen di déranger ndax daa am ñoo xam danoo bëgg di yor say mbir léegi nag moom moo yor mbiri boppam waaw. <laughs> Hmm. ñu dugg ci Balla Gaye 2 Balla Gaye 2 Tapha coow li bari na de sëñ bi Balla Gaye Balla Gaye Tapha moom duma ma si wax ndax wax naa la bàyyi naa wax ci lu ma liggéeyatu mm-hmm. wax naa la fii nee naa la bàyyi naa wax ci lu ma liggéey wante benn message daal lay jaar euh, lancé Balla Gaye mm-hmm. muy bu góorgóorloo tuuti li ko naqare woon ci làmb moo ngi ci kanamal bu ko tafaatin Tine daanee mm-hmm. ak bu daanee Tapha Tine yëpp bu góorgóorloo làmb moo ngi moo ngi ci kanam mu koy teewaat makan lii xam nga alxuraan maa ngi toll ci isi bu baqara tilka rasul moom lay barke alxuraan bu góor-góor loolaa moo xam tafaatin daan ko moo xam mu daan tafaatin wante mën naa teewaat làmb ci kanam waaw li may wax nag du neex a dégg wante boroom xam-xam ak boroom xel ak ki xam li may wax dina ko mën a comprendre wante li ci kanam rawati bët bu góor góorgóorloo moo xam tafaatin daan ko moo xam ma daan tafaatin wante dina téewu jiwaat làmb dina amaat coow làmb ñoo ngi fi ñoo ngi fi ñoo ngi fi yaa ngi fi maa ngi fi weeru koor la nekk nan too xool lool ba ci kanam dana am coowu làmb xam nga <laughs> makar ma daal li ma lay wax daal muy Balla Gaye bu góorgóorloo tuuti coow làmb dana ko amaat dana teewaat làmb laa la wax ba nekkoo si la wax ay léegi yi <laughs> <laughs> <laughs> man daal déggoo li la mhm. bu góor-góor laa daal dina teewaat làmb mhm. Hmm. Mhm. ndax ku wax sëñ Cissé wax ko ci diaspora bi ku wax sëñ Cissé wax ko digganteem ak Modou Modou yi sa digganteeg Modou Modou yi sëñ Cissé borom taw féex ak Modou Modou yi seen diggante waa ñun moom dañuy ñaan xam nga loolu laay wax chaque jour boo tuddee sa si du ko ci làmb wala nga tuddee dama naa la man yemuma ci métier bi kese mooy seen Cissé du làmb kese mm-hmm. man li ma dul la dem làmb moo ëpp li may dem làmb mm-hmm. def moo ko sax métier mm-hmm. man ñaanay sama métier ñaan ci laay yaakaar ci laay tedd nga xam ne tey jii ni boo ma tuddee tudd ni ñaan rek boole nga ma ci biir noonu mooy jëflanteek muuru ma noonu laay jëflanteeg ñeneen ak ñeneen fii ci biir réew mi wante képp koo xam ne rek woo nga ñu tamit wax dëgg yàlla wax ñu sa soxla comme la ci njëkk muy ak seet buñ la seetalee xam ne mbir mi lee ko baare wala mbir mi liyee ko kale wala mbir mi nii leen def pour mu dox boobaa dañ la koy wax bu soobee yàlla suñ borom defal la ci bu buñ ci déggoo suñ ñu ñaanal la ci suñ borom la ci tawfeex incha allah. mais ci wàllu seet sëñ si seet ci wàllu seet. yaakaar naa yombul ngay euh, li may wax bu doon émission direct la dina bëri ñoo xam dana dugg seede ko man ngay woo ma wax la ni la euh, di ma wax sa soxla ma ni la yónnee ma sa tur ak sa turu waajuru jigéen yow xam nga ci dara ndax am na fu ñu léegi bu ma la waxee loolu bu pare danga naa ma seet gi man loo yónnee baax nekkoo di seet. waaw déedéet déedéet déedéet damay seetal ni sax du ma ko waxee yónnee ma sax du wax ci waxi loo euh, yónnee bi wala du wax ci wax xaalis mhm. te dama koy seeta ba pare bàyyi ko noonu mu dem. Mhm. dama lay seeta ba pare wax ni la waxal ñu ñaanal la. Mhm. wala demal ñu ñaanal la du ma la imposer sama bopp. bu ma la gisee ba pare dinaa ne xoolal kilifa gu la doy. mu defal lay ñaan. ñi may jëflanteel xam nañ li may wax. bu ko defee ci biiri wax la naa ma li nga ma gisee yow yaa ma ci doy pour nga jëflanteeg man hmm. bu ko defee nag ci laay jëflanteeg yow ba suñ borom def tawféex hmm. ba suñ borom def tamit yaakaar gi mu am ci man hmm. yaakaar googu bañ a tas wante comme loolu laa wax ma ne képp koo xam ni nar naa faj say soxla boo woowee yàlla nga jot ma ku ma ko nar ta faj nag boo ma woowee yàlla boo ma jot loolu <laughs> gàllaaju ndigg gi nga xam ne moom ngay joxe ak jaaro bi waaye fi may njëkk ak yow mooy jaaro bi nga xam ne moom ngay joxe ndax moodu moodu yu bare bare bare ba damay gis say vidéo saa bu duggee commentaire bi mooy defal na ma jaaro bu baax defal na ma jaaro bu baax sa digganteeg ñin ñi xam ne yaa ngi jëflanteeg moom ci wàllu jaaro ak bi joxe ci jaaro bi. waaw jaaro yi dafa nekk jaaro yoo xam ne yii day dox ci mbiru kaaraange ndax am na xeeti jaaro yoo xam ne tey jii ne boo ko liggéeyee ba takk mhm. euh, comme tey jii nii awafaal mi bu yoroon Euh, ñam boo xam ni dafa am tooke moo xam poson la wala tey jii ngay dem ci benn bërëb boo xam ni ña nga fa nekk wóoluwu leen ak ku mën a nekk rek mu yor aw ñam boo xam ne dakaa bëgg a indi pour nga lekk bu ko ñëwoon jim ba la koy jige si ñam boobu doo ko lekk suwaat da koy jël kaas bi wadd wala suwaat mu jub si la tànk yi jaxasoo ñam bi tuuru wante noo mën a def doo ko lekk moom du dugg sa biir te bi ci gën a yéeme muy koo xam ne suñ borom def na nga lekku ñam am naa ci benn sungub boo xam ne dama la koy jox nga def ko ci kaas yëngal ko boo ko naanee ñam boobu lekkan ba mu nekk tooke ci sa biir di metti sa biir wala mu andi la jafe-jafe boobaa lépp ngay génnewaat soit euh, da ngay wàcc euh, nga dem ko wanag noonu la lay def bu dee jaar yi nga xam ne am na yoo xam ne day dox ci bayra ak wàllu wërsëg te ñaar yooyu sax daanaka benn la ndax bayra mooy nit ñi wuy si la wërsëg nag boo amul bayra <laughs> doo ko mën a am ndax gisoo ko ni am naa wërsëg ba pare ñàkk bayra déedéet gisoo ko fenn wante li ci ëpp solo mooy boo amee wërsëg te sa loxo bi dàq tasaareb xaalis kon daanaka sa wërsëg des na daanaka dama la wax ni la alalu sàmb alaal rek nga dan lay jëriñu waan doo jëriñ kenn doo jariñ sa bopp wante li ci ëpp solo mooy saa boo kiyee xaalis danga koy mën a téye mm. nga xam ne doo xaalis bi day toog doo uh, yor loxo bu bënn nga xam ne xaalis bi ay fekkante te da nga ciy mën a jariñu di si jariñu loolu moo tax man la loolu ëpp solo ci jaaro bi wante jaaro yi daal bëri na ay njariñ yoo xam buñ toogoon fii di ko wax tam xam naa day jël émission bi tey tey émission bi danoo bëgg di wax fii di wax fee bu ko defee nit ñi mën cee jariñu mm-hmm. Mm-hmm. sama commentaire daa am message ne ma laajal ma Serigne Cissé ba xam méttitu biir bu yàgg ci gu bon la lekk mu yàgg ci biir bi di ko def méttitu biir ba xam bu ñëwee ci yow. waaw moom laa lay wax léegi ma la lekk goo mën a lekk mu nekk tooke ci sa biir ci li njëkk muy doo ñëw rek ñu ne suñ biir day métti rek <laughs> ñu jël xoolee la su nga loolu risque la ndax xamoo ba xam dafa yor feebaru rein wala xamoo ba xam dafa yor feebaru tubaab wala xamoo xam ci lan la nekk li njëkk muy ak seet xool seet gi ba xam lii feebaru say ndax saytaane tamit day jàpp nit ba jàpp ko ci biir. nga xam ne tey jii lu tax mën a seytaan day jàpp ne ba jàpp ko ci biir muy parfois nga dem nit ko euh, xew xew nga dem ci digg ndab bi jël fa aw dog dog woo nga jàllale ko tey ji boo ko jàllale mooy nekkaat tooge ci sa biir léegi nag loolu day nekk loo xam ne say saytaane la bokkut ak li nga xam ne tey jii nii posan la wala tey jii ñu jël jox la noob xam nga ñaar yëpp te ñaar yëpp biir lay jàpp mooy bi nga xam ne nitu guddi la ak bi nga xam ne nit moo defar noob wala moo defar saafara jox la jof ko fenn nga naan ko ñaari méttit yoo duñ doon benn metit bii nag boobu nga xam tey jii mooy méttit bi nga xam mooy seytaane comme tey ji wàllu lekk goo xam ne mbiru saytaan da ci nekk muy doogu yàpp boo xam da nga kaa lekk boobu bu la jàppee day dem bay jàpp sa biir bi di la ñiisal yow di la jeexal bu dee bee xam ne tooke la moom du la jeexal wante day jàpp biir bi du ko métti wante du ko méttil tout le temps uhuh. bu dee bu saytaane bi nag guddi lay bañ waaw euh, fu timis jote foofu moom dalay commencé alag ba fajar jot bu fajar jote mu mel ni dara dalu la nga jóg doxi say soxla bu dee bee xamul guddi xamul bëccëg heure bu ko centré da koy def mooy bi nga xam ne tooke la yooyu li ci njëkk muy ak seet buñ la ko seetalee ba pare ba xam ne lii saytaane la ñu génne la boo xam ne saytaane la ci lay dox nga xam ne da nga ciy naan di ci sangu ndax bu génnee bu génnee ci biti mën naa bañ a jàpp tànki ndax lool lekk ci mbirum saytaane bu yàggee ciy tànk lay wàcc mooy waral tànk yi nagam tànk yi ruux tànk yi crampe ngay toog ba si ak sa tànk yi gaaw nagam yëpp seytaane day def loolu mm-hmm. bu dee bee nag moom du jàpp yooyu ndigg lay jàpp mm-hmm. mooy jàpp biir bi jàpp ndigg mooy boo lekkee lekk gu bon mm-hmm. naa la liggéey saa bu la jàppee ci wetuk droite wetuk droite nga xam ne boo toogee nii comme nii ma toogee bu yàggee day mel day am luy nekk fii nii ngay mujj def boo defee nii ba mu yàgg da ngay mujj di def nii nga xam ne sa fii dangay ngay mujj sonn bu dee liggéey nag dalaa jàpp wala feebar jàppale ci wetu droit pour góor ñu faj la yomb na wante bu la jàppee ci wetu càmmañ muy feebar muy liggéey pour faj la day jafe est-ce que xam nga li ma la bu dee jigéen liggéey da ngaa jàpp ci wetu càmmañ jàpp feebar jàpp ko ci wetu càmmañ faj ko dana yomb maanaam bu ko jàppee fii ñaar yooyu faj ko du yomb. ndax lan ci ñaari côté xam nga lu daal bii mooy tey jii ne yaa ngi dégg ñu ne bii négatif la bii positif xuma dafa am foo xam ne nit ki mën naa laa wax ni la day tollu moment boo xam ne ginaar mën na kaa faj muy négliger boppam ba xar di ko faj muy négliger boppam ba bëy di ko faj muy négliger boppam ba nag di ko faj muy négliger boppam ba giléem di ko faj mu toll moment boo xam ne dara du ko ci fajal lu dul coobare suñu borom nga xam ne feebar bi ci lay deewaale loolu mooy nga xam ne da ngay am lii di ko négliger ba mu dem ba ñëw ci beneen côté bi nga xam ne nee la liggéey day dox ci yaram day yàq yaram bu commencé ndigg li jàpp ndigg li bu yàggee nag day dem ba commencé wàcc ci tànk yi nga xam ne yow pour nga tëdd sax stable day jafe sa gi daanaka day mel dañ laa sëf àddina boo yeewoo day mel dañ la doon duma xam nga yooyu yëpp day nekk loo xam ne day dox ci day mel ni genre cet mel ni genre sayaat sayaatin te fekk na liggéey lay nekk léegi nag yooyu boo ko yoree te toppatoo ko bu demee ba yàgg day sa yaram bépp mhm. keneen ki di ma di ma envoyé message ne ma moom dafay tëdd ne na ma di faral di gént ba xam ne na loolu rab la wala du rab day tëdd di faral di gént di sëy lu bari te amagul amagul kër. waaw loolu tamit <laughs> rab da koy def rab mën na di la def ngay tëdd di gént te ki ko yor dëgg dëgg dëgg saabu bu géntee ki mu gën a rus lay gént. loolu la soit waajuram bu góor. ay loolu wala magam bu góor wala rakkam bu jigéen wala waajuram bu jigéen. yaa ni dangay ngay génn koo goo xam boo xëyee suba doo ko ñimee expliquer kenn ci àddina. Mm-hmm. loolu xeeti rab la siiñi rab la. ak ñi nga xam ne dañu yor seeni awra di ci mballoog yépp rab boobu lañ yor. nga xam ne feek seen mandiw bi génnul duñ am jaam te bu seen mandiw bi génnee danay jooy xaqan jël kaamil jàpp ba sell jàng alxuraan tuubal yàlla te suñ pare woon rab bi soxlawaat leen da leen koy defalaat xam nga yooyu yëpp qualité rab yoo xam ne bokkuñu moo tax képp koo xam ne am nga ko rek demal nga faju ci ndax sobe baaxul day gàttal aw fan Sëñ Tuubaa wax na ko sobe baaxul day gàttalu fan day tëje ñaari mi def moo gën a bon te noo mën a mel mel mel ci àddina ak loo bari wërsëg ak loo ma entreprise di ko def tamit bu yàggee kamañ ngay mujje ak alal joo mën a am ndax sobe baaxul léegi nag bu la suñ borom defee loolu may wax lii may wax mu nekk si yow fexeel nga dem xoolaat sa bopp ñaan lu ci sa bopp fexe loolu denc ceew comme kooku ngay wax noonu na dem xooli maaman tey jii nii mu ñaana ko ci côté rab mm, ndax rab bi nee naa la rab bi nga doon ak rab bi la dab doon ñu benn. Ah, day am rab boo xam doona la am rab boo xam te dalay xam nga tey jii nii bu dee man mii nga xam sama maam bu jigéen ak sama maam bu góor dañ daan ñaan sama maam bu jigéen di ñaan ci wàllu rab féere wàllu rab yi tey jii nii dina am loo xam ne dama koy doon bokkut ak li nga xam ne tey jii ni man rab damaa dugg. tey jii waa dox ci dox ci mbedd yi sol ci gàtt solu lu ak taataa ndox yii nii tuur ci mbedd jigéen ju ko bàyyiwul ak góor gu ko bàyyiwul di ci dox surtout jigéen di sol lu di dox ci taata mbedd yi di nga faral di am metti tànk wala soir rab dugg la ci. ndax yooyu yëpp mi góor muy jigéen muy góor muy jigéen ndax ndox yii ñuy tuur ci mbedd yi moo gën a bon yii ñuy tuur ci mbedd yi nii nga xam ni des fois day nekk fóotitu mbe fóotiti yére ñu tuur raxasit raxasit aw ñam ñu tuur ndox mu tàng ñu tuur leneen ñu tuur loolu day dem ba nekk dëkk dëkkuwaay boo xam ne rab moo fay féete nga xam ne nii nga gisee nu fa tuuree daal da ngay gis muus yi dañuy jikki-jikki dem fa di fa forantoog yooyu di fontu day dem ba noonu ngay gisee muus yi noonu la fay rab yi di doxantoo doxanto bi ñu fiy doxanto nag defaay nga jaar fa dëgg seeni doom doom yooyu ngay dëgg wala gaañ gi nga leen di gaañ tey jii ci leen lay andi li jafe-jafe ni laa la koy waxee ni la comme tey jii nii am na heure yoo xam boo ko doon daw nii yor ab oto di daw ci tali bi am na heure yoo xam ne boo ko doon ndaw fi nii nii ci yenn tëli yi danaa la bala ngay agsi defal klaxonné fi nii nii guy euh, mënu may dem ci péage bi am na diggante ba ay guy la am wante bala ma faa egg damay klaxonné klaxonné ñett yoon wane ni maa ngi ñëw door a jàll ndax yow tey jii nii am na ñoo xam ne duñ ko gis wante saa buñ dee jéggi nga nar a laal seen doomi rek mooy war a ñu fil oto bi nga gis yenn accident yoo xam ne day day métti ba pare du xam chauffeur bi lan la te chauffeur bi bi muy dawal du nelaw yooyu moo koy waral. nga xam ni lii da lay gis wante doo ko gis yow pour nga gis ko nag da ngay nekk koo xam ne borom bopp nga wala ci leneen ngay dox ci ngay mën a xam ne lii nangam la lii ma arrivé nangam nga xam ne defaat di nga dox sax si tali wala di dawal ba si ak sa yaram bi daw nga sentir ni ndomba yi nga takk day commencé seerew ngay sentir sa beneen yaram ci leen da ngay xam ne am na lu nekk ci millier bi bu ko defee nga teggi sa tànk def ndànk ba jàll nga door a dem. Mhm. dégg naa ndomba googu mi ngi ak waaw ndomba koy joxe gis la jaaxal moom day wax di jooy ndomba ndomba moom daanaka am na ci yoo xam ne barke alxuraan jëruma lay jox ndomba ngay takk fii may waxee ni ma benn doom daan naa ko tawaan tëkkatum benn doom dama lay jox yoo xam ne boo ko dee sangoo laa la moo raw ndomba xam nga ndomba man ngaa sangu yor ndomba yow doo xam jëmi ndomba bi lan lay bañ ba nga jaar fa mu toj ngay wër nag di takk ndomba gi kese xottu ndomba jàpp ne am nga kaaraange ëllëg nga sóobu ci leen mu trompé la wante sangu bi nag boo ko defee moom jeex na tàkk mooy pikir bi rek li tasaaroo saw yaram ak li nekk sa kaw der bokkuñu li nekk ci kaw der pour ñu faxas ko mu day ñëwaan li nekk ci biir yaram dindi ko moom daanaka yàpp wa ngay da ngay rey sa bopp kon noonu la sang ak takku mel wante buñ la ci defee kaaraange amul yoo xam ne moom da koy tiit ci yéeg yi yooyu matale na lépp matale na lépp te loolu ci alxuraanul karim ndax suñ borom dafa dem ci alxuraan nga xam ne fii dafi doon tëkku yahudi fii tey jii nii mu fi wax lu mel ni ku mel ni saxaaba yi wala yonante yi fii nga gis léegi lii la fi doon loolu yëpp la ni boole dëxañ ko nga xam lépp ci alxuraanu lay nekk mm-hmm. nga xam ne téere téere bi yàlla bi waxee suñ borom ji ci la lépp nekk mm-hmm. loo bëgg saafara ci àddina moo ngi fii mm-hmm. loo bëgg a tukkal tamit ci àddina moo ngi fii loo fi bëgg a def moo ngi fi noob ak lépp fii la nekk waaw kon nga xam ne tey képp koo xam ne am nga kii moom lan lay defal jox la nga sangoo ko wax nan ak nan nga koy defee mu ànd ak benn sarax boo xam ne chaque jour moom nga koy def te du chaque jour bis boo xam moom nga koy génn waan saa boo ko dee def yii moom mënu laa yàqal waaw bu dee rab bi nii rek dama lay jox sangat boo xam ni digal la tegtal bu ndax saa te tëdd nga koy def. moom rab bi rek boo pour rab génn ci nit ak rab ni mu doy waar nga ne sangat ak tegtal rek ngay def. giñ naa ko sëñ Tuubaa rab lum la jàpp jàpp. daa am sangat goo xam bu ma la ko defalee ak benn tegtal boo xam ne saa boo dee tëdd dama lay wax nga def ko ci sawet bu doon rab bi da nga ko daan gis nii muy génne ci port bi di ñëw ci daa am ñoo xam ni rab bi leen fekk si du gént day ñëw xàqan bi am na koo xam ne mu ma rab bi rab bi day jël téléphone day jël téléphone dem ak moom kanam gu ñàng lay nekk ñëw forcé leen tëdd ak ñoom téye seen loxo yi ba duñ mën a bouger mu tëdd ak ñoom hmm? di jóg bàyyi leen fa ñu dem te buñ làmbee seen awra danay gis ni ndox mi daa tooy xib seen awra yi day tooy xib loolu rab dëggantaan la kooku tey jii nii bu la dalee am na loo xam bu ma la ko defee sankat woom bu mu la ko defee defal la tegtal boobu yàlla xam na ni rab bu ñëwee fi day mel ni euh, nga tëdd nga tëdd fenn ñu muur la sànk kenn du mën a du mën a fexe fexe ba yegg si ceew lu dul séen rek lay man ceew loolu nag mooy dem ba te saa bu ko rab defee def ñett yoon ñeent yoon da bàyyi automatiquement da xam ne mënatu ci yow dara Mm. secret baa ngi fii. <laughs> waaw makat ñun ay gis tey jii doonoo demu ci ñe néegu ñaanukaay bi waaye bu demee ci yéen néegu ñaanukaay bi yaa ngi fekk lépp ñun ñaanay suñu métier mënuñoo am lu dul ñaan defuñu ñaan businessman defuñu ko lenn ci la ni tedd ci la ni troxe mm-hmm. ku ma wax sa soxla xaalis ba mu yëkkat di la may ci ñaan laa ko mm-hmm. kon kooku duñ ko fooye mm-hmm. mm. ba tey fi may tëjee ak yow mooy dugg na ci wàllu rab waaye dañoo duggaat ci li nga xam ne moom mooy élection yi ku ne xam ne ne 2024 yaakaar naa ne dimanche la élection yi ñu àgg ci tantat gi ki nga xam ne moom mooy toog président Sénégal daal di toog élection yi loo gis coow li bari na de sonk Sonko Sonkoy Diomaye Amadou fii coow li bari ah Anta Babacar ah réew mi yëngu na réew mi yëngu na de. waaw xam nga man moom dinaa ci wax sax wante liñ ci wax mooy doomi sénégalais la dafa aw ñu wax ci bu dee doomi sénégalais tamit ñoo wëlbatiku wëlbatiku di jongante ngir benn affaire mhm. dañ leen ci wax ñu dal ci def ci ndànk mhm. lëndi lu ci waay defañ ci lu bon bu tëddee réccu ko fii moom ma ne la xëccoo neex na lool wante saa bu demee ba ba nga am ndam wala ba gañe la ba ca suba loo ci defan ci lu bon danga koy réccu tuubaat rek ngay gis moo tax dañ leen wax neen deme ci seenum xel demee ci ak xel mu dal ak teeg ak teeg ku ci suñ borom jox réew mi nga xam ni jox na la ko wante dama laa wax ni la bàyyi naa wax ci lu ma ñaarut waaw am na am naa ku ma faral koo xam te bu wote jotee dinaa dem wote ji donte musuma wote nag ndax jaraluma ko wante dinaa dem wote ji ndax kama faral wante nekkuma ci nag di ci rey sama bopp nag comme ñii mm-hmm. moo jaral la ngay dagg sa yitte mm-hmm. war a lijjanti jaam ñi nekk fee di dem ci yeneen ak yooyu ñàkk fay doy moom nekkuma ko mm-hmm. li ci ëpp solo xeex bi ëpp solo ci xeex bi mooy yoral sa carte mm. bu jour baa nga dem ci mañ gàcce gi woote jomaay feek euh, Amadou Ba ñëpp a ci yem mm. ku nekk li ngay kart ginnaaw ba nga ci jiitelee réew mi sa boppa a tax ndax boo toogee sa bopp moom nga toogal kon nag nit ki day tamit day lijjanti boppam moom it du dëgg moo tax daal ku ci yàlla jox ndam daal yàlla jox ndam ndam ñu ngi la koy ñaanal mu jig la tamit ki perte xam ne àddina moo demee noonu rek. Mhm. kàddu gu mujj ana tàggu ak lan ngay wax. kàddu gu mujj mooy <clears throat> santaat yàlla baax julliwaat ci yonent bi alayhi salaatu salaam di wax ne kàddu yi tamit ku ci gis loo xam ne naqari na rek ñoo ngi koy tuub di ko jéegul te xam ni ab jaam la taalibu Cheikhul Xadim bu xeeb moo doon wax ak yéen ku ci gis lu la neex tamit yàlla suñu borom la. Mhm. ñu ndax ñun motuñu. Mhm. ndax tey jii nii bu <laughs> bun matan rek yaakaar naa ñooy yoral suñu bopp lépp waaw na ñàkk mat moo tax tey jii suñu borom sàkkunu ci li sàkkunu ci lee defal ñu guddi ak suba kon nag ñoo ngi sant ñëpp di ñaanalaat suñ mun taxaa suñu borom bàyyi ko fi mu yàgg fi loolu tafeer mbaak ki nga xam ne tey ji sa sa ngoon rek mi ngi ci isbu yi di teewlu njàngoom xasida yi ak ak atim toll nga xam ne kii xencu ci lu baax bëgg lu baax moo ko ñor nga xam ne bërëbu Tuubaa mën naa laa wax ne fii ci élection yi ñi ñi tal li moom boo fa demee alxuraanu karim ak xasida rek nga fay dégg kon nga xam ne ñoo ngi dundal li nga xam ne moom la yonente bi alayhi salaatu salaam bëggan yàlla bëgg ko suñ Tuubaa bëgg ko kon nag ñoo ngi ñaan suñ Muntaxaa suñ borom bàyyi ko fi mu yàgg ñoo jiite yàlla taxaw ko yàlla tamit taxawu tarixa yëpp ñu yàgg ñoo jiite ku mel euh, Tijaan laay ña seen xaadir ñëpp suñ borom bàyyi leen ñaanal waa diaspora bi suñu borom defal leen tawfeex ak taysiir ba ñibbi seenum réew xale yi jaar ci microgora bi yàlla na leen yàlla defal ba seen yaakaar bu tas ba ñibbi si waat seenum réew ñii tëdd ci opéré suñu borom yëkkati leen ñii tamit féet caabi caabi leen ginnaaw yàlla na leen caabi féete kanam kon ñoo ngi tàggatoo di wax waaleykum salaam wa rahmatullah waaw mbaxana mi de maa ngi koy nuyu bu baax suñ maam Balla Daaru Mbàkke nga xam ne sëtu maam Thierno Birahim Ndaamal la moo ma benn kilifa gu mag ci yoonu daaru moo ko joxoon mu ñëwaat joxaat ma ko ni ma dama bëgg nga yoral ma mbaxana mi nga xam ne képp koo xam ne gis nga mbaxana rek moo xam da nga kaa gént wala ñu jox la ko rek siiñ bu baax la fii nii nii saaboo géntee sol mbaxana rek na nga xam ne martaba bu yokk la martaba mooy daraja daraja bu yokk lii di kaala lii di mbaxana yooyu yëpp saaboo ko géntee wala ni jëkkati jox la ko rek daraja la kon dañ koy sant moom maam Balla Daaru di ko ñaanal suñu borom taxaw ko di ko ñaanal tamit li nga xam ne tey ji moom la ko maamam bàyyee moo ngi ci jëf Mbàkke di gërëm ñëpp di sant ñëpp waaleykum salaam wa rahmatullah jërë ngeen jëf mbokk yi kooku ngeen gis moom mooy Serigne Cissé borom tawféex mu nekk jàmbaar joo xam te ni nag yaakaar naa ne mbokk yi kenn dootu ko présenté ci réew mi ndax bari na bu dara dee am ci réew mi bu ci jógee wax ci noone mu waxee noonu la ko suñu borom di dogalee dégg ngeen ko du man yàlla la waaye xam-xam bi jotee da koo jàngi xam-xam bi jotee da koo donn ci ay maamam xam bi jotee da koo donn ci waa waajuram moo tax tey lii muy def mérite la ci moom te lu mu leen wax nag mbokk yi ci wàllu seet ci wàllu si li saxaar rek xamar ne dëgg la numéro baa ngi noonu nag di daw ci suufu écran bi képp koo xam ni bëgg ngaa jëflante ak moom woo ko ci numéro bi te koor gi nag la ñu nekk saa boo ko woowee di ko jot direct te yaakaar naa promotion la nekk ci koor gi